asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi leen nuyu di leen lii nag dafa nekk benn mbir moo xam ne dafa urgent maanaam ñu bari dañ ma koy laaj euh, mu jëm si wàllu kaaraange xam nga dañoo toll si jamono joo xam ne gis nañ ne agression bi bëri na gis nañ ne itam accident yeeg yenn dee xaaraan yi ak itam yenn tooñ yi nit da lay ba pare. Euh, jam la wala mu tooñ la ba pare faagaagal la wala mu tooñ la ba pare sëriñtu la day faral di am wala nga nekk si diggante moo xam ci sëy ñu def si ay mbir ba yàqu ko wala nga nekk si liggéey ñu yàqal la ko wala nga nekk si yoon ñu yàqal ko wala nga nekk si bërëb sax ñu fexe ba yàqu ko kon nag kaaraange dafa nekk jamono ji mbir moo xam ne moo war a jiitu si lépp balaa nga naan naam da nga fay nekk tay nag incha allahu rabbi ma fas yéene jox leen benn mbir moo xam ne lii man maa koy takk sama téere la man si boppam maa koy takk te du ma leen nëbbu secret bi dinaa leen ko jox yéen tam ngeen defal ko seen bopp dégg nga kon nag bàyyi leen xel li ma leen wax bu baax te ngeen bàyyi xel seen côté yaram yi moo xam yéen ak seen ay doom ak seen jaboot ak seen famille yëpp kon li ngeen bind mooy waradallahu lazina kafaru bi xaysihim lam yanalu xayran wa kafa allahu muhminina qitaala wa kaana allahu qawiyan azizan lii da nga koy bind si liimu téeméer téeméer yoon nga koy bind wa radallahu lazina kafaru téeméer yoon nga koy bind soo ko bindee ba pare nga dem si awkat yi ñu ëwal ko nga takk ko soit nga takk ko def ko sa biir yére yi wala nga de ko def sa poche mi ànd ak yow waaye dafa war di ànd ak yow toujours dégg ngeen mu ngi noonu euh, dinaa leen ko wan gis nga li gis nii seen écran yi ma koy génnee di leen ko wan man lépp lu may def rek damay ñëw séddoo ko ak yéen dama bëgg man lépp lu may def yéen tam ngeen di ko def du ma leen si nëbbu dara lii nii sama téere la moom laa leen wan nii maa ko ëwlu ba mu baax nii maa koy takk yàgg na si man kon li nga xam ne def naa ko di ko jëriñoo moom lay ñëw séddoo ko ay yéen tam ngeen def ko kon def leen ko bu kenn mënta def itam bu ngeen ma contacter ngeen envoyé message numéro boobu di affiché si écran man bu ko defee daan si jëm sama kim carton ba ngeen ba ngeen am ko incha kon mi ngi noonu fonk leen ko bu baax ñu ngi yem fi ba jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah